di ñaan sun borom defal ñu tawféq di ñaan yàlla mi boroom faj aajo yàlla na yàlla faj aajo yi ñëpp fu waay mën a nekk ci kawnu bi rawatina ci alamu al misli alamul mooy fu jullit ñëpp nekk euh, tey nag euh, danoo ñëw pour leeral lu aju ci tomb gént moto ndax gént la goo xam ne euh, dañuy seetlu ne mbokk yaa koy faral di laaj dañ ciy ñëw nag benn leeral rek ci ay mbir yoo xam ne dana dana dimbali ñenn ci ñoo xam ne faral na leen di gaar moto oto velo fas xeeti jumtukaay yooyu lu ci ëpp daa nekk jumtukaay yu am solo ci budul gént ak bii gént moo tax ñoom am gin am solo moo tax gént ko lu ci ëpp yiw lay doon wa ilaa yokkute ci aji gént ji bu ndee moto nag mooy jumtukaay boo xam ne mën na laa jële fi yóbbu la barab sàngam te say tànk du ko yëg du dangay toog rek def ay mouvement ba àgg fi nga jëm kon loolu lu am solo la kon boo génteeku day nekk ay mbir yoo xam ne day so day am solo moo tax ñu fas yéene ñëw indi ci ay leeral gént nag day dépendre ci tolluwaay nit ki ak ci mbir yum nekk yàgg naa wax zaahir waaye li nga xam ne mooy mbir moo xam ne amul benn jubluwaay amul ci yàlla yàlla lépp lu mu wan jàmbire am na ay jubluwaay ak ay mbir yuñ ko bëgg a misaal misaal boobu moo xam nga yëg ko nii wala nga ñàkk ko yëg beneen bi ci toppaat am na ay njuumte yoo xam ne danga koy faral di gént am na ay mbir yoo danga koy faral di dégg ñu indi ay njuumte njuumte yi nag ñenn ñaa ngi koy wax ñenn ñi du ko jëf am na ci ñoo xam ne xamul dara ci wàllu gént sa mbokk day gént dara woo la rek nga wax ko ni ko nàngam lay firi fekk firiwul loolu yenn saa nit firi gént loo xam ne dëppoo wut ak li war a am yenn saa nit laaj jiit gént mu tiital ko goo xam ne dalay lay mujjwaat keneen kooku doog ko koo leeral xelam doo ko dal euh, nañ ci bàyyi xel bu baax nit ki tamit imaam Malik day wax ne ba ñuy commencé nit ñi di commencé firi gént danañu di fooyo xam-xam bu jëm ci wàllu nubuwa ak nubuwa la ñuy foole fooyee mooy xam-xam la boo xam ne ñaar lay doon benn yàlla am lum la xamal lool nga mën cee wax di ci laa biir ay nit way la nga dëgër fit lool ñeme yalla am na lu ñu wax tafsir am ñu ñu wax tawil tafsirul ahlam nak moy ñu ki wax la nga xol ay tektal yu nuroog lim gént nga ne ko sa gént gi nangam lay tektal nga xam ne ko koy firil tawil nak moy nit ki wax la gént gi nga mën ci am benen déggin bo xamne soko ko waxe dana mëna xamne effectivement li nga ko firi ak li jox ben la moo yent yalla yusuf wa waxoon rabbi at ataytani al mulki wa tani min tawil ahadis yalla nga ma yalla dimbali xamal ma xam-xamu gem kon loolu mata lah ñaan la amma nak euh, ñen ñi nga xam dañuy jug ne ku gént waro ko wax kenn loolu it njumte la ndax dañuy wax ne li yalla misal nga war ko xam war a xam nooy wattandikoo nga ne duma wax kenn dara loolu njuumte la am na ci xeetu gént yoo xam ni moom ko gént yént wax na ni war ngaa jóg ñaan yàlla mosul seytaane doog a tëddaat moo tax mu ne ruya min allahi wal xul min asheytaani eh, ruya mooy luñ lay wan ci yàlla lay bàyyi ko waaye gént gu bëri fitna bëri ay jafe-jafe nag nee soytaane seytaane laxas na ci gannaaw mooy gént goo xam ne ay xaj di la dàqe ay muus ay gaynde di la matt yooyu ngay gént ñu lay suul yooyu xeetu gént gént la yoo xam ne seytaan da ciy laxasu xeetu gént yooyu nag koo gént bu yeboo nga teel a jug teel sa programme jug ci sa bopp xam ne am na luy xaar ci kanam kon xeeti gént yooyu mën na koo gént toogaale ko ñu ëpp ci nit ñi am na ci leen gaar misaal na leen ci misaal na leen ko ci gént ñenn ñi am xel nag dem nañ gëstu ji teel a wattandiku ñenn ñi toog jàpp seen ñàmbur ne gént gi dafa garaaw duma ko wax kenn nit koo xam ne gisoo ko xamoo ko xamu la euh, salaamaaleykum maaleykum salaam mu leer la sa gént bu ko jàppee am noonu xanaa koy ki nga ko war ragal wax mooy koo xam ne da ngeen dëkk te nga gis na day def ay jëfi kiñaan wax waxi kiñaan te xamul dara ci gént ko war ko ko nettali ndax xis si yént yàlla yuusufa boo déggee ñu sukkandikoo ci loolu ba mu koy nettali baayam man nga wattandikul sa doomi bàyyi dégg la ndax xam na ni lii lu bàyyi ko ci yàlla te am na ci ñoo xam ne ak kiñaan nekk na ci ñoom mën nañ la yàqal loola waral ñu indi yuusufa ci àll ba ànd ak moom ci àll ba bëgg koo fitnaal bëgg koo rey ban jël ko jàpp ko jaay ko ab jaam ca buur ba yooyu yëpp lu ko waral mooy kiñaan kon yooyu ak yi dafa wute ndax Yuusuf mu nettali gént gi eh, kii moo ko ne ba mu koy nettali baayam kenn moo ko dégg ci ki nga xam ne mooy ko jigéen ka dem nettali ko ay doomi baayam ñooñ na commencé defal Yuusufa ay ndëgg sarax ñu koy fexeel di ko indil ay gàllankoor di ko indil ay jafe-jafe kon loolu wute naag lii nga xam ne moom la ñenn ñi bëgg a sukkandikoo ba tax ñu ne ko gént war a ko wax kenn da war a toog kon te saxaaba yi ak yéent yi daan daan gént ñëw laaj ko ko mu leeral leen ko ci misaal ibnu sirir ba xam ne yàlla may na ko ci xam-xamu gént mu am ci xam-xam di ci dox di ci wax kon kookit lam doon wax lu leer la ko teg ak ñi mel ni ñoom kon ku ne gént kenn war ko nettali jàpp naa ni njuumte gënu koo rëy kon nga ñaan yàlla ki lay laaj nga am dégg ba mën koo firit la muy wax xam-xam bu jëfe la nag xam-xam bu ni jàng la bu ñuy gëstu waaye nag day ànd ak may yàlla ndax nekkul loo xam da toog nii di di tiit di wax rek wala di xalaat di wax di ci desaa tamit nit ki lu la yàlla may may may yàlla mayagu nga mën a taxaw ne koo firil gént mu doon lool lool yàlla mën naa may waaye yàlla may la nga dajal lépp loolu mënta nekk danga fexe nag ba ñu lay woo ñëpp nga def sa kéemtulaay kàttan ba mën ngaa fexe lañ bëggoon a dégg lay gént gi tegtale nga wax leen ko am na ci benn benn doomu aadama yoo xam ne ñoom seen gént lañ yor di wër ak moom rek dañ ko yàgg di wax mooy am na luñ jàpp seen biir xol luñ jàpp seen biirum xel di ci xalaat fekk dégguñ ko leen wax loolu dañuy jàpp ne mënoo firi gént yow mi xam gént di ci yëngu nag loo leen wax lu dëppoog loolu duñ ko bëgg a dégg lañ bëgg a dégg mooy leen jàpp kon yooyu ay njuumtal yoo xam dafa nekk ci biir ñenn ñi di ci wut ay kalan di wut naan kii ma mën a firi kii mënta firi koo gis mu nekk ci di ci góorgóorlu am na lu ko ci yàlla may am na ñu am na ñu ciy jàppale bañ ciy gis seen bopp lu waay niiw niiw xam-xam am na ñoo xam ne dinañ ñëw ci yow jariñu yok kon loolu lu am solo lu mata a bàyyi xel la moto nag baax na ci jumtukaay euh, fekkee nag da ngay listixaar lu aju ci wàllu tukki ngay ñaan yàlla tukki bi ma jëm baax na wala baaxul nga gént gis moto bu bees taq nga war koo di dem ba àgg fi nga jëm loolu yëgal ni bu doon looy sàkku danga ci jot ñu yeex mu gaaw danga ci jot ala kulli xaalin beneen bi ci toppaat mooy rek. ngay wàccee ci moto te xamoo noo def ba yéeg ci loolu la loolu ay xat-xat lay tegtal dana wane ni mën ngaa mbir yoo xam ne mën naa ñëw te bii ñëw dalay bett ay xat-xat yoo xam ne mu ngi sa kanam te ñëw dalay bett euh, beneen bi ci toppaat moo koy xam da ngay ñaanal ci wàllu aajo nit la sàkku dara la ko nga jékki-jékki yow aajo ji yéeg ci moto dem ba àgg fi nga jëm loolu it saa bu amee yéegal lim la doon ñaan yàlla dina ko sottal ci misaal. Eh, ba tey gént war moto def accident baaxut loolu saa bu amee rek ay tolof tolof lay tegtal dina tegtal échec bu metti benn ci projet bu taxawoon sa kanam di ci waaj a dugg wa ila mbir moo doon bëgg di ci waaj a dugg di nga ci am ay tolof tolof loolu mu amul sama dem ñoom eh, beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangaa gént ñu may la moto baax na moo xam jigéen nga wala góor nga yaa ngi ci buumu sey wala nekkoo ci buumu moo xam yor nga place wala yoroo place bu dee jamono ji nga gént loolu da doon wut wàllu liggéey nga gént ñu may la moto baax na yëgal ni liggéey bi nga doon sàkk di ko am bu dee jigéen ju nekk amul borom kër célibataire di ñaan yàlla lu aju ci wàllu borom kër gént ñu may la moto baax na loolu day tegtale ngoro gu bees goo xam soo ci duggee ab sëy lay tegtale yow mi nga xam danga nekk ci buumu sëy jigéen mënoo am doom nga gént ñu may la moto loolu baax na day tegtale ne yàlla mën naa dogal di nga jël ëmb balaa yàgg ba tey góoru célibataire gént ñu may ko moto baax na saa bu amee rek na séentu yokkute na séentu ngoro goo xam ne bu ci duggee rek say dina ci am incha allah rabbi euh, beneen bi ci toppaat koo xam ne daa wàññeeku nga doon ko ñaanal la ak njëggal nga gént gis ko mu nekk ci kaw moto loolu it mën ngaa am rafet njort ne ki nga doon ñaanal yàlla yàlla dina ko sottal mooy la ko doon ñaanal njéggal diggante moom ak boromam mën ngaa jàpp ne yàlla dina ko sottal moo tax ci anam bu mel noonu lu baax la ku faatu nga di ko ñaanal yàlla njégal gént gis ko ci kaw moto loolu it mën ngaa rafet njort ne euh, kooku yàlla dina ko jéggal fa mu nekk beneen bi ci toppaat euh, koo xam ne da ngeen waaj a seq liggéey nag. nga gënt and ak moto ba ci def accident baxul kooku day wone ni bu ngeen andé tamit da ngeen am échec bu metti seen walu liggéey ba moto dana tektalé projet bu bees mbir mu taxaw sa kanam bo xamné di nga ci dugg benen bi ci toppaat gënt jek jek nit supporté la ci moto xamoo kum doon lolou baax na loolu bu amé ci gënt day wone né yow mi gënt gënt gi di nga and ak nit ko xamné ci wàllu liggéey di ngeen ci ànd jariñu dana tegtal tamit relation bu bees boo xam di nga ko am ak nit ci anam boobu moo tax lu baax lay doon ci wàllu gént beneen bi ci toppaat mooy koo xam ne dangay gént am moto te bu dul gént amoo moto loolu it nit ku gént loolu mën ngaa séentu wàllu avancement walla soppite si sa wàllu mbiru bopp ci misaal nga gént yor moto te bu dul gént yoroo moto moo koo xam ne dangaa gént dawal moto te bu dul gént tamit mënoo dawal moto loolu it saa bu amee rek ci gént loolu na séentu wàllu ay mbiri boppam ak changement dina ci am bu baax a baax benn bu doon ko nekk ci xat-xat balaa yaa dina ci génn ki nga xam nag dangay gént dawal moto ba ci yàgg moo moto bi taqali ko ci misaal pono kanam bi jaar ne pono gannaaw bi jaar ne loolu baaxul loolu tawat lay tegtale benn ci ku la jege wala koo xam moo tax ci anam ba mel noonu nekk loo xam ne gën na ba tey dina doon koo xam ne ku tàqalikoo lay doon eh, ba tey koo xam ne dafa tawat nga di ko ñaanal yàlla ak wér nga gént war motu ba ci yàgg réer ci àll ba feeñoo ni nga ni nga yeew loolu it baaxut loolu saa bu amee rek aji tawat ji mën naa faatu ci tawat ji loolu saa bu amee rek day wane ni ki nga xam ne moo tawat tawat ji mën na cee jaare faatu moo tax ci anam bu mel noonu nekk loo xam ne gën na incha allah rabbi Euh, beneen bi ci toppaat liy tegtee aajo ju faju mooy ki doon ñaanal nit ki dara gént ñu jox la moto loolu it mën ngaa jàpp ne aajo ji nga ko doon ñaan bu doon yëkkati ko la bëgg mën naa am ak yëkkatu même bu doon da ñaan aju ci wàllu tasxiir tasxiir mooy ngay sàkku dara ci nit bëgg yàlla jox la ko te du benn jafe nga doon tasxiir jékki am ku la jox moto ci gént loolu jégal ni li nga doon ñaan yàlla ci wàllu taskiir yàlla dina ko jàppal te bu sottee dana nekk loo xam ne dana gën alaa kulli moo tax ci anam bu mel noonu baxna lol, euh benen bi ci topat li tektel aajo ju faju genti gis ay moto yu bari sa kër lolou budé ki liggéey tur yàlla balaa yàgg mbooloo mën na laa wuyu sax lolit kuy di wuy ci lay doon li baxut kay genti sa moto ñu sacc ko baxul ben dara tektel galankor ci yow wala sa njabot ben sa dom am galankor wala sa soxna wa ila yow sa jëm bop nga am galankor wala sa liggéey kay ba tey génn sàcc sa moto baaxut saa su amee am na koy seqal koo xam ne taxaw na tànki war la wala tànki jafe-jafe am seen diggante moo tax ci anam bu mel noonu saa bu amee gënul euh, beneen bi ci toppaat koo xam dangaa gént di dawal moto ba ci yàgg mu paan loolu saa su amee euh, séentul ay jafe-jafe séentul ay gàllankoor yoo xam ne taxaw na ci sa kanam xaw ma nag lay waaja dugg lu mu doon waaye yëgal ni am na lu gaar sa kanam loo xam ne mën na la yàqal beneen bi ci toppaat tamit Gint dawal moto ba ci ak ay police arrêté la am lu la laaj bàyyi la nga dem lolit mo lay xamal ne di ngay bëri ay gàllankoor way gàllankoor lo yakal dara lo téye avancé lo téye ag fi nga bëgg ag moy mooy gént dawal moto ba ci ak ay police japp la bàyyi la nga dem lolu sa anam bob sa amé ci gént rek baxna benen bi ci topat gént ay police japp la ba ni nga wala lolit it lolit loolu la sax bala barabu kay sentu ci ay gàllankoor yo xam di nga fa bidaa tamit séentuwul ay jafe-jafe ba tey gént nga yëg ne sa moroom danga koy jaay loolu it baaxut loolu saa bu amee rek dana indi ak réeroo sa digganteeg sa soxna wa ilaa sa digganteeg sa borom kër wala sa barabu liggéeykaay bi nga nekkoon mën nga cee am ay jafe-jafe moo tax ci anam boobu tamit nekkul loo xam ne gën na ba tey gént ñu may la moto baax na loolu palaasu liggéeykaay baax lay tegtale bu dee jigéen la borom kër lay doon. borom kër lay doon bu dee góor tamit séentul soxna su baax soo xam ne dina dugg ci sa loxo moto bu weex baax na couleur boo xam ne moto daa gis ne couleur bu weex la loolu xibaar yu neex lay tegtal ak avancement ak yokkute moto bu ñuul baaxul bu dee barab la barab bi bëri ay jafe-jafe lay doon barab liggéeykaay wala soxna soo xam ne dana bëri ay jafe-jafe ba tey bu dee sëy la day tegtal yenn saa ay naqar yoo xam ne day am seen wàllu diggante moo tax ci anam boobu nekkul loo xam ne gën na ba gént moto bu gudd lool ba jéggi day ba nga xam ni baa moto baaxul mel ni loolu dina tegtale ci ñenn ñi gudd fan dina tegtale tamit ci ñenn ñi ay mébét yoo xam ne ñu ngi mu ngi seen kanam te mënuñu ko yeggali loolu dina tegtale aajo ju faju kon ala kulli xaalin lii lañ indi woon ci ay yenn ci ay leeralaat yoo xam ne daa aju ci nga gént war moto ak nga gént gis moto ak nga gént ñu jox la moto kon yu ci nekk rek ay amsaal ak ay misaal la yoo xam ni ku ci nekk mën na cee bàyyi xel lii rek ay leeral la ay gént sàngam waaye li ay leer la pour nit ñi mën cee bàyyi xel bu amee gént wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala